sama secret depuis 4 jours mi ngi ni ma ngi opéré tata fatou lobby ak police mbay ah ku ne xam na sama tata fatou lobby dafa mën a topp yow looy wax ni mais sénégalais doon 100 99 yépp police ah mhm. sénégalais ñi ngi leen de lan moo leen leer na police dañ koy wax ak man wala ku may deglu war na xamne li Pawlish may def ni kuñu yabal la du kuñu kuñu togn ah nga ne wa baax na bam soti li da lañ ñoomo no sant mun a nga tek tata Fatou Lobé sax sama yaay la ah ku man yaay te nga xam ko di nga wax ba yëkëti dënnam waxi dof lay wax ma wax add àdduna ñu dégg ko <laughs> tey nak waxi dof di dañ koy yëkkati tegee ko né te wax waxi nit nga ne ndaxte ab dof kenn ko ya mom xew me atana li mu mais police est ce que xam nga ne tay ji waxi nit lay wax. ne ko final waxi nit lay wax. i ana ki ko wax. abba police mo wax lol mais ma rek ma réglé ak moom. police moytul tooñ yaayu jàmbur. musuma wacce tooñ kenn ba wax sa yaay wala sa papa. ah bu fatene ne tata Fatou Laobé yaay jambour la di. ku ñu laalon sa yaay ba fekk sa yaay mu toog ñu saga ko tay kenn du am jamm te sax ku ci nek war ngaa yaay jambour nek ko ngir sa yaay rek tax. gis nga ku wegul sa nday doo wekk dayu jàmbur. dëgg du rombi nopp. moo tax police ma bëgg nga ñëwaat tamit ci li nga wax Tata Fatou Laobé ba mel. parce boo nekkee yaay ju perte yaay joo xam ne kenn nawloo la ci àddina sa moromu artiste yëpp ci àddina raw nañ la. yow lu la perte loo ci àddina ak li la fayloo muy casino ci àddina loo am carte nga ko da ngay jël sa kase sax dem carte ko def ci kaw dem carte. waaye waxi ruube la. boo xasee ba du casino jeu yi dañuy commencé ñëw Fatou. fatu kinte kin faatu ya, astaghfirullah wa police mi kan moko ko wax tata fatu de bingo bingo ku ne fay dem même ki la wax sax day dem bingo Koku bingo na ba bingo sen wa keur muni la bisina tata fatu yo tamit wàcceel station bi nga tayle sa or waye waxi ruube la ja lu ne def ko ko ci da nga perte di amatoo or ay problème rek ay takk sooy soo dem xew da ngay ay or mu ay police lan mo la ci leer samay or musuma koo tayle doomu aadama. yow gis yow génne ma say or yoo xam ne yaa xam moo taw. yow tekki woo démb doo tekki tey doo tekki suba. yow ni nga mel ni su suñu borom moo lay wan misaal. misaal mënut a weesu nga mel ni sa kanam gii kenn xamul looy ndur yaay barke alxuraanu karim bu dee ba ba nga ba nga def rek démb ndur woo ko ndoxum si di yàlla ko gisante rasulaay. et police yaa ngi dépassé gis sa make-up bi boo ko xolli woon da ngay gis ku jabet te yow leer damay da yow doomu mbedd nga. ya cheikhul ibrahima baba lamine jassi lo mu yor carte ko da nga yor say seyme dem bingo ñu kay la ba nga jeex nga dem tayra say or bu pat hmm, ba tayra say fer kon yomi ya yaa wala tayle eh, astaghfirullah do ya bon il faut ñu arrêter li nañ arrêter li li ça marche pas effectivement mais police mi xana da deug liggéeyu jambour te yegu ko nit da ngay fonto sa morom bu don sa yaay la do bëgg ñuy tuddu ay feram wala ñu nan day kat nga wax moy deug parce que fo la rek da ngay selli rek jàpp yaay jàmm wax ko lu neex ba pare naan dama doon kaf. eh bu ñu fontoo laa la wax sa kaf yi ne njëkk na mujj. caméra yi lay fekk si ak interview yi. bu mu tax nga yaf nit ñi. ay dama siw léegi am naa buzz. bu mu tax ngay fontoo nit ñi. ay waay police bi mbaalu dañ koy ruux di. police bu dee dañ lay ruux yaa ngi ci erreur. police bu nekkee dañ laa yónni. yaa ngi ci erreur. police bu nekkee ne da ngay yaa ngi ci erreur. ndaxte kat tooñ amul gàllaaj. mag mu rey moom yàlla na ci yàlla musal. kiif kiif excentré bu baax lay doon ndaxte fu mu demoon ne tooñ rek na xolu rek lay def. dootoo santere fenn. ay waa ji nañ jox cër ñi ñu mag awaa baax na. may wax nga naan <laughs> kay day def nii day def nii. waa police mii nga foog ne bu ñu doon def concours réew maanaam ki gën a réew ci àdduna bi du jël coupe bi nga foog. fa ma bàyyeekoo ca mbuur ñooy jël coupe bi. ah foofu moom xanaa ay boy ñooy génn. ay paa ñooy génn. ah réewaane ne moom amul benn njariñ. li wax mooy dëgg. xam nga lu nu bëgg nga lem sa ba mu romb. ah waxee nag. baatin mel mi. baatin laay waxee. afal wàcceel Ali wàcceel station bi. ba tax na police li ma lay wax mooy Tata Fatou sa yaay la te yow xale nga. xale bu juumee. yaayam. waaw. bi day baalu yaayam. kon d'accord nga ni da ngaa juum. sama yaay. ah baax na lenn rek moo ci des jéggal ko te tub te baal ko àq. ndaxte tooñ du gàllaat mais tooñ jéggalu ñu jéggal la am na. barke alxuraanu karim bu dee dama laa dépassé yaay booy. man maa lay baalu àq. fi nga waroon a baaloo dafa trop tard. lay baaloo ak bu baax a baax. Pawlish baaluñu la. ah. Eh, astafurlah. Eh! baal leen ko rek am na amu solo. man personnellement baalu ma la. doo leen ko baal te yàlla rek tax ci weer bi sell bi ñu nekk. baaluñu la. kon boo ngeen baal ko àq bal ñoo korité. bu ñu korité baaluñu la. mais ñu honte. tey ngeen ko baal ba ngeen egg ci yàlla. balaa yàlla dina laaj seen diggante da nga koy baal wala noo koy def léegi yow loo koy tontu kon. ma ne ko baaluñu ko. mu ni. na sadi man de dama rus gàcce dama bëgg a rey ma ne bal leen ko ak wax yàlla mi ñu sàkk sax chaque jour ñu tooñ ko mais day di du rombi xam nga Fatou di wax Fatou sama xay dama bëgg te tax kon boog du leen wax ñu jéggal police moom ak yaayam wax du ma bëgg sori na tal ma ku ma àkk ji ay kat police du la àkk si du problème àkk si Fatou la wax la ma Fatou wax dara dama lay wax lu sukk sukk na ba daayu nga ni ma déggoo de dese dégg kay xam nga sukk sukk na ba sukk sukk na laa lay wax balaa nga maa supp wala nga may sukk sukk na ba ma giseen teeg maman Ndoye Ndiaye ndànk man de lii laa wax mbaa yéen loolu ngeen wax am ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa bu ko defee ñu bàyyi maam mu ñaan ba beneen yoon rek I mean, what